ñaareelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi noonu seytaane ñëw ci awa ci jëmmu jaan ngir nax ko awa ne ko mën nañu lekk ci doomu garab yépp ci tool bi ba mu des genn garab yàlla wax na leen ne bu ñu lekkee ci garab googu dinañu dee jaan ja ne awa bu ñu lekkee ci garab gi duñu dee yàlla dafa xam ne kon dinañu mel ni moom dinañu xam lu baax ak lu bon seytaane nax na awa bi mu ko waxee ak dëgg boole ca ay fen seytaane dafa ne leen seeni bët dina ubbiku te dinañu xam lu baax ak lu bon loolu dëgg la waaye fen na bi mu leen nee duñu dee noonu awa jël ci doomu garab ga lekk ci may ci aadama moom itam mu lekk ba aadama ak awa lekkee doomu garab gi leen yàlla tere ca saasa ñu xam ne yaramu neen lañu def noonu ñu jël ay xobi garab ngir sàng seen yaram ba ñu déggee yàlla di ñëw ñu làqatu léegi ma laaj leen juróom lu tax seytaane fiir awa seytaane dafay xeex li yàlla tëral seytaane dafa bëggoon yirif nit ñi ak àddina si juróom benn lan la aadama ak awa def bi seytaane fiire dañu ko déglu bañ a déglu yàlla juróom ñaar ñàkk a déglu yàlla lan lañuy won ci mbirum nit nit am na coobare topp seytaane wala yàlla